di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ñu ngi fii tey ci pro lavage ki ñu fi woo di xale muy petit production mu organiser bis bu mag ñu jëm ci le 17 juillet ñu ne grand combat bi mu jël Mbaye Tine menn mi nga xamante ni ci keppaaru Lac de Guiers lay yeewoo mu boole koog booy yëmbal xale bi nga xamante ni ndaanaan la champion la mbokk yi mu taftal ci ay xale yu bare bare bari ñoo xamante ni ku ci nekk am nga mbooloo mën ngaa bëre xam nga li nga doon waaye programme bi ku ci nekk xam nañu dañoo nekk ci wàccaayu tabaski ndax ñu ci bari yaakaar naa ni xarum tabaski bi yembagul ah Babacar <laughs> waaw ñi nga xamante ni ay ñett ak ñeent la ñuy jënd mbokk yi kon dañuy dugal mbër rek présenté leen ginnaaw suñu kilifa Babacar mu ngi fi bu ñu dugalee mbëri jox ko mu wéyal su ko defee ñu wéyal waxtaan bi ki ñuy njëkk a dugal day bébé xarañ ana bébé xarañ. bébé xarañ am na ay ca dañuy dugal bébé xarañ sama gaay yi nañ leen dugal bébé xarañ. bébé xarañ mu ngi noonu lang saane la nekk waaye day bëre xale boo xamante ne ndaanaan la macha allah gis ngeen ko mu toog te tekk wax la muy Diène 2 li leen dugal Diène 2 mu ñëw ay ca Diène a ngi noonu ikiri Mansour mbay la nekk yaakaar naa ne ñoom ñaar ñi tolloo nañ de jege si ma ne ko yaakaar naa ne ñoom ñaar ñi tolloo nañ de kan moo ci njëkk a wax yéen ñaar doxo nee na yaa njëkk a wax noo def aousubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw ba nu sante yàlla xam nga julli si yonent bi di sant suñu ñaaru waajur xam nga di bëggee ñi ma àndal di bëggee monde entier incha allah di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di leen baalu àq di len ba ak yéex a ñëw bi xam rek nekkoon ci ay business incha allah moo waral ñu yéex a ñëw mais maa ngi jégalu si tardement beeg lépp. xam nga Bébé Diène. non kii soxlawul ma koy xam. Hmm. xam ko nax. kan moo ko nax dañ koo nax si bul isaan koo nax bu bis baa lay comprendre maa ko mën maa ko doole maa ko bëre ba muy bëre bërewul. Bébé nga jël de. waaw loolu dëgg la waaw bisimilah onze billah ginnaaw bu ñu sant yàlla du journante bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur xam di sant ñu teew ñëpp di sant sama gaay ma àndal xam kii moom lu ma koy wax barewul moom mi waaw ndax nee xaw ma ko man wax nañ ma ko daa bëri temps yi bàyyi sa daanu kon moom mënul bëre waaw wax ko bàyyi si làmb ji nee xaw ma ko day sóob day sóob. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama premier combat. nga dugg si laal kii. lool lool lool lool du bagage kii méttiwul kii méttiwul kii méttiwul xam naa ko bu baax. nee na xaw xam naa ko bu baax. koo xamee. waaw xam naa ko. ay nit toog na man wax maa yam mbiram wax naa xam naa ko bu baax. waaw xam naa ko bu baax. xam nga ko moom. jéemu ma koo xam kii dañ koo nax. lu tax xam nga tax dañ koo nax. kooku bis ba la koy xam ci la avant maa jël lu ne wax na ko xaaral ma xool keneen nangam nangam affaire yi fawum góor la da ngay sóob affaire yi fawum góor la amul tapet balaa xam man ñi may bëri affaire Senghor di leen bëree terrain gaal gi di génn si àll bi doo seen morom dañ laa nax quatre la ma am benn victoire benn défaite trois victoire du man yow spécial laa mujjee bëree jam la man maa man maa la bu doole barki Serigne Touba Serigne Babacar Si dinaa la woon dama lay daan bëri loo ba Sénégal gépp xam dama lay daan dama lay daan ci kàddu na baax na jërëjëf jërëjëf ay ca tàggatoo la waaw waaw di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp xam nga di woo sama waa koñ man booy sareer laay woo incha allah ak sama waa écurie xam ak sama waa dëkk na ñëpp ñëw jàpp ci combat bi nañ ma xamee woon ma defee ko kii du kaa bu ma ko jàppee mu xam ni mënul bëre igri Mansour Mbaye ñooñu xam nañ ñëw dañ ñuy laaj seen tëdd liste kañ def tëdd liste ba ko rawul kara jàppee da koo matt jam la ñii seen waa équipe du ñu yëpp waa Géejawaay gàkku dë ba mu jàppee seen mbër mi da koo ba ci kaw mu teg ko mu dóor ko mbët mu rëy ñoom am na solo woote waaw ñu woo waa waalo gëpp ñu ngi woo waa waaw ñu ngi woo ñëpp di woo waa buun xam waa yëmbal waa malika xam nga bàyyiwuñu kenn waaw maa ngi woo ñëpp daal di woo ñëpp waaw di sant kër gi moo nekk nag di sant sama pap Matar maa ngi koy sant bu baax waaw jàppal na ma bu baax ak sama pap moo xam nga ak sama benn tànt gàddaay xam nga sama bàggeen abi maa leen sant bu bëri bëri waa kon bu yëpp maa leen sant parce que jóg taxaw ci combat bi xam nga loolu noonu di sant ñëpp nag di woo sama gars yi nekk waalo ñëpp di woo ñëpp waaw waaw buur ñëpp bàyyi ma kenn di woo waalo gëpp waaye ma kenn nag ma jàppale seen doom laa ma jàpp kuy defaral ko bagage la di set incha allah waaw seen Mbacke Sène ana Mbacke Sène ayca yóbbul Mbacke Sène mu ñëw ayca Mbacke yóbbu a ah, Mbacke booy njaga lay bëreel ana booy njaga daa ruux daa lan daa ruux lu ko ruux loo mbaari bopp laa ko naroon dóor moom mbaari bopp laa ko naroon dóor lu ko tere ñëw mbaari bopp laa ko naroon dóor ñeme nga loolu yow demee nga encaissé mbaari boobu. xaw ma sax luy laa ko naroon dóor moo tax mu dina ñëw de. yàlla ko yàlla defal jàmm defal ma jàmm ba bés ba. est daa wuti xaru tabaski. loolu problème am la naa xar ba pare. bu hmm. ma ko jàppee ma koy defaral ba parcelle ñu ma yónni yaa xam ne ma. voilà di nuyu ñëpp. waa di woo suñu waa dëkk bu baax a baax waa Kibik Njaga ñaaw maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn waaw di woo waa Lambi Joolaa bu baax di woo waa Amiskat sama mafiyaay waa juddu reeba xam nga waa ñongoloor bàyyi ma kenn ma fi yaa parcelle yëpp maa leen di woo incha allah si bés ba di sant moo njaago bu baax a baax a baax di sant suma yaay xam suma rax yu ma bàyyi kër ga maa ngi sant ñëpp di sant waa parcelle bu baax a baax a baax wax jaratu ko jaajëf le 17 ñëw na ba pare jaajëf wax na dëgg wax jaratu ko le 17 ñëw na ba pare ay ca ñu dugal Issa Pouye numéro 2 Issa ana Issa Pouye ah Issa ñëwul Issa ah ay ca yóbbul Issa Issa booy calaan lay laaleel ana booy calaan ñëwul ah gars yi daa mel ni ba léegi mbër yi amaguñu xar tabaski de sa adversaire ñëwul loo koy wax. onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew ñëpp su ma limee rek jum di nuyu sama mag boo yëmbal Paul Maurice waaw sama adversaire ñëwul lu may wax bëriwul damay ñaan dama koy ñaanal jàmm rek ba jour yal nañu yàlla may ndam ñun waa yëmbal ñëpp yal nañu yàlla may ndam fooy tabaske fii ngay tabaske non mbuur laay tabaskee ah. incha allah xanaa doo fa yàgg déedéet. da dem préparer damay dem rek tàllal meer bi loxo mu ñaanal ma ñëw. jaajëf incha allah ñu yóbbul leen ñu Issa Pouye ndeysaan ñu koy jaajëfal bu baax ana calaan ñu dugal calaan calaan jàmbaar ana calaan ñëwul ah gars yi daa mel ni ba léegi ñu dugal ama bu kolobaan ana ama bu kolobaan ay ca yóbbul ama mu dem njaabu ama bi garaaw na de ah salaamaaleykum. sa waa ñëwul de. waaw gisuma ko de waaw maa ngi koy ñaanal jàmm nag fépp fu mu rek waaw wala jour si incha allah. ayca wooteel say bi ma sant yàlla juli ci bi di sant sama ñaari waajur di sant sama mafia waa Colobane di sant sama waa école bi nga xam ne ñoom ñoo may jàppale ci contact yeeg combat maa ngi woo waa Colobane gi yëpp waa zéro heure waa dix heures. waa afghan bi mafia bi yëpp mafia cor bi ñëpp laa woo ñu ñëw jàpp si combat bi incha allah. le 17 loo nar a def. waaw le 17 moom li ma nar a def waaw maa ngi koy waaj rek incha allah comme sama adversaire ñëwul moom. garaawul waa jarul ñuy wax. waaw nañ xam ne rek le 17 le 17 la incha allah ñu ngi koy waaj. comme ni ñu doon waajee yeneen kombaay di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci ak jaam ak salaam ñu fekkee ko tal ko. waaw yàlla defal ñu ndam quoi. incha allah. ayca jërëjëf. ñu jaajëfal ama bu baax ayca ñu woo Ndandi Fall numéro 2 Ndandi Fall numéro 2 Grand mbooloo yóbbul Ndandi yow jël xanaa day nelaw ah yóbbul Ndandi waay Sésam lay bëreel ana Sésam ñëwul waaw waaw sa adversaire ñëwul looy wax dama naan onze bila simila yàlla waaye dañuy sant yàlla bu baax waaw di nuyu suma kilifa yi ma fi fekk di nuyu suma am di jàmm yi waaw di nuyu waaw ñi fi teew ñëpp sama adversaire xaw ma lu ko téye mais dama koy ñaanal bu dee bu dee jàmm la daal da koy ñaanal jàmm ba jour bi yàlla may man am li fi liñ fiy wax jarul wax ndax moom dafa absent ah, ñoo fi teew mais nag dañuy ñaan yàlla buur bi mu may ñu ndam mu may ñu ndam bu baax di sant promoteur bu petit di sant journaliste yi fi teew yëpp ak tambour major yi journaliste yi di leen sant di leen gërëm di sant gars yi fi taxaw teew nii yëpp ndax li yombul di ñaanal waaw mbër yëpp jour bi yàlla na lañu indi si jàmm ñoom ñëpp que le meilleur gagne di ñaanal ñëpp di ñaanal Brip ñoo bokk Ngor bokk Yoof waaw di woo waa Ngor Wakaam Yoof di woo waa zone 7B di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp ndax tamit waaw jàmm rek si ñëpp waa di woo sama papa Biram Ñingi waaw di woo monsieur le maire Dan sama papa Modou Gueye waa seen Senzalaaf waaw sama mafia bi di woo waa Café gi Texas au calme waaw maa ngi woo ñëpp Baye Fall yi barki Sëñ Bamba Nandi Fall góoru maire Dia di ko ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm ak ñi mu fa fekk ñoom ñëpp di ñaanal samay ñaari waajur ñu ma jiitu mm. yàlla na suuf sedd seen kaw si barki Sëñ Fall waa jërëjëf Nandi Fall numéro 2 ayca sama gaay komba bii nag day nekk combat boo xamante ni combat problème la ci képp koo xamante ni journaliste làmb nga wala reporteru làmb ndax suñuy ñaari xarit suñuy ñaari doomu ndey ñooy bëre kenn ki di plateau plateau xam ngeen ko ana plateau cey plateau ndeysaan plateau ngi noonu yóbbu ko noonu Fass bennoo mais day bëre xale boo xamante ni xale bi ñëpp ko bëgg dimanche bu jot mu ngi ci làmb ma ngay dundee làmb ma ngay def lépp ci làmb muy yàndaa numéro 2 ay ca dugal leen ma Yanda Yanda bu Bawol Yanda ak yaakaar naa ni combat bii combat bu nar a neex la ci ñaari xale yi Plateau xool na càmmoñ wala xool na ndeyjoor Yanda xool càmmoñ Yanda ngi nii de auzu billah bismillah inna wali yàlla ginnaaw ma sant ginnaaw ma yàlla julli si di sant suma ñaari waajur di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay di sant sama papa di si teg di naan xat fax ak kabala xat basa fadala fa duuru wala wan naf jaay jërëjëfe sëriñ Touba jaaraama si Amadou Kara Mbacké Noreyni jaraw lak maam lamb Kara Fall bismillah sawaay wax na de nuyoo na de waaw ginnaaw ma sante yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaani waajur bu baax a baax di nuyu sama yaay yàlla bàyyi ko fi bu mu fekkee sama njëriñ ak sama papa di nuyu waa Medina bu baax ASC Kusum bépp maa di bëggee waa Medina bépp waa Refane maa leen di bëggee di leen nuyu billaay di bëggee waa Bawol kulu di nuyu suñu président écrit Cheikh Anta maa ko nuyu baa ak sama papa Bada Dione gaa yëpp ñoom mbéy guy gi kéwél bursin bàyyiwuma kenn maa leen di nuyu bu baax a baax a baax sama papa maam Góor Sam Assane maa leen di bëggee gaa yëpp gaa yi doo nuyu waaw maa ngi koy siyaar maa maa ngi nuyu kooku Thiès ñaar lu leen boole jege si leen parce que da ngeen a jege si leen lu leen boole baa yéene man aw ma jotu wax. jotu wax la amul espagnol bi daf may naan noo tengo tiempo para hablar. yo pidon perona todos yo estoy nacido para volver en campeón. muy loolu. waaw loolay tu mare bas no kese kese naara congaane mara xee. kii dëxin bu sedd la barki Serigne Touba. kii yéen ngeen naan bëgg lu tax ngeen bëgg ko promoteur lu tax ko. mooy lan bis na ñëw ranger ma siège yi parce que sama coach dafa war a topp baax mu duma ko daan ko doole Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw nee na doole duma daan waaw kii Baye Fall yi di ko trouvé bu yàgg kii man parewuma wu ma ñëw ci stade bi bëre de barke alxuraanu karim damaa ñëw pour xeexal moom bu at gaayat jot taxaw billaahi wallaahi bëre wu ma de alxuraan man kii kii kii kii yamuma sax barke Serigne Touba Mbacke man petit moo ma yab du tax petit yab man sama place fii la fu champion yi toog fii mooy sama place mais du maag booy bi c'est am lu xam rek moom moom daw laa xoolal tapet la ay pange bande bu mu dëkk rue cinq bu mu dëkk rue cinq bu mu dëkk maa kii kii seen di sant sama yaay nogay bu baax maa ngi koy sant bu baax a baax mais kii barki borom Touba ma ko jàppee moo xam ne man maay gone li maa kee te ñembe leen na fi doon taay suuralee war na sëñ Bamba bilaay wallaay wax wax wax wax waaw lamb ji wax la ci am ñu nekk fii wax mais man ku ma xam ñu toog fii boo xam ne yàlla dëgg xam ne yow arbitre bàyyi sama loxo yow man duma la daan la yow man man man doomu faasa ah. billaahi wallaahi du ma morom billaahi wallaahi dama am doole barke alxuraan sàcc bu dul raw jarutoo yaa xay loolu garaaw loolu garaaw le 17 soriwul man doomu faasa ah. man man doomu Faasa xam nga man Faasa eh, man Faasa dëkk. man doomu Bawol laa ak Medina. pour ma ma woon doomu Faasa. waay pour yóbbu ma Faas ma xool. wax kii wax dëgg la ca. ayca àndal ak moom ñu wooteel na ku ne woo ay mbokkam waaw li may tàggatoo rek di woo waa Réfane bu baax a baax a baax rawatina waa añ njaar gi ma dëkk di nuyu suma copain bi ma àndal Lamine maa li koy bëggee waa Riseng ñoom waxaab sox ah gaa yëpp maa leen di bëggee Abdou Ba posi sama gaa yi nekk Medina bépp maa leen di bëggee bu baax di woo ci combat waa kusuma aw ma seen tey gis naa ne ñu ma taxawoo waa Garaaf di nuyu waa Réfane bu baax a baax di président école di nuyu Assane Ndeye Sarr jàpp na ci bu baax ak sama papa maam Gor Sam gis naa bee yëpp na ko barke alxuraan waaw di woo Bamba di woo waa Medina waa Medina maa leen di woo surtout waa Réfane di nuyu waa Simol di nuyu suma kot su alaaji gis naa ni mu may jàppale bu baax a baax. ba gën a yeggale woote wooteel. waaw di combat bi maa woo waa Fass di woo fukk penc ñaar yëpp di woo sama mbokk bambara sama mbokk yaay di naan mbéfoo mbeemal mo honnude foola baafe ay gey dubaabu keñe yana ngawoobi ay dubaabu keñe di bége ñëpp di bége waa Fass Djolof fu ma jógee di ñaana Siteu Bamba Birke yàlla may ko ndam bu baax sama booy ñëw fii awma seen fay ñoom Pico Momo gaa yëpp sama président Pape di ko sant bu baax kii amul xaalis Pape Fall 200000 la jëkk di may ma ko kas wóor na borom Touba man jàppale bu ma am booy bi ko di woo Ndeye Mbacke Ndeye Mbacke borom Lodo sama lépp maa ngi koy woo bu baax magay borom Paris ah maman Alice mujjee ñëw gën a siwle am am Kër Masar nee na sama yoon nekko ci golo ba póotal hmm. waaw courant du moromu batterie moo tax ma ne la piyaari xee rek hmm. moom gërëm na tey bés baa naa yeggale sama lim incha allah jaajëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom plateau mbokk yi ñu dugalaat beneen combat muy Paul Maurice numéro 2 ak jàmbaar ana Paul Maurice Paul Maurice a noonu yóbbul Paul Maurice palmarès numéro 2 jàmbaar lay laaleel ana jàmbaar ayca dugalal jàmbaar Paul Maurice. jàmbaar ñëw na de waaw. auzu billaahi mina seytaani rajiim. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim kelte kelte bamba teg rek jinne sangalu saabu maba jaabi jongul. fabale jinne patam tum tum kaye baa ma kaye boobu jinne ko jinne saalim. ginnaaw ma sant yàlla di jur si sama yaay bu baax di bi petit bay sant bu baax a baax a baax parce que ñu bëggoon suñu combat mais yàlla si loxoom la ko jaarale di sant parrain bi di ko wax tamit ñun ay gone yëmbal lañ ay gone jaxaay lañ waaw lépp benn la sot seet def si la di ko wax mu jàpp lañu di sant boo yëmbal di ko ñaanal yàlla ndam di sant Issa Pouye sa mbokk mbër bi moo fekk di sant mbër yi ma fekk yëpp ak journaliste yi tamit di sant tamit gaa yi ma àndal ku si mel ni Mao Iba Mbaye ak Baaj Fall di leen sant bu baax di leen nuyoo tamit jaajëf jàmbaar loo wax ñëw na jàmbaar ñu ne di wax di ma saaga quoi di wax man de ma respecté sama yaay man du ma saaga yaayu nit sama yaay dama koo bëgg man kafoo ma ko moom nag moom respecté wul yaayam di ma saaga bay naa ko dara garaaw mais du it sama yaay maag moom te bu bés ba lay leer bu soobee yàlla loolu nar a jëflante ak moom ah man moom xam nga nee nañu fu jëf war rek waxooru fee bari quoi bàyyil rek ba ma ba jëf li la ku am wax waru faa bari voilà loolu dëgg la naa ko bàyyi wax bi rek soxaar jëf bi su suur ba dina xam man may kan sim naa weeg yoon nag maa ngi gërëm ñi ma àndal ñëpp ñoom soo ak so ga jogoy ganja faama xoya fogole séeréer kandamta fo xuwa i bes ne jaxantinum fen bes ne ka ref bun bes kam joom waaw mi koy waagim lay kam fin anda man dama mënut wax ci biir waaye maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. nee na da saaga. kii bu ma jaxasee ak àdduna ko saaga sama boy bi dafa ëpp xorom mu toj leket bi yaa ngi dégg saagawu ma ko dama ne ko man a yow la du fii per kii li muy wax waxu jëf man maa ko dàq jëf fuuf sept combats laa am six victoire benn défaite Liss Ndiago moo moomu jumloo kii xamuma moo tax mu jël sama avance kii kenn xamu ko dama koy may sens ku daan baama jaxal bëre ak Liss Ndiago kii nii bésul làmb ja dama koy wan ne ko du ma sa moom bu mu def dara na taxaw rek billaahi na taxaw bu mu def dara fu ma doon jaarale ay moromam foofu laa koy jaarale moom nee na moom nee na kenn xaw ma ko waa liis moo ko daan liis mi ko daan xam naa ne maa ko moom loolu du wax billaahi walaay taala man maa ko moom liis njaago ko daan maa ko moom dégg na man kam kenn nag xamuma mais fi ma toj moom toju fa yaa ngi dégg comme faral lu mu wax sax rek ragal du jël benn saakam ànd ak moom kese dugg ci àll bi di jaayante ragal du def loolu yaa ngi dégg li ma la wax voilà. lom man dama bëri ak Sibor Sibor bu jaxaay dama bëri ak moom Iba Mar daan ko Fallou Ndiaye ma bàyyi ma fenn ma jógee Sibor ñu yóbbu ma drapeau chef moom na laaj Koña 2 ak bébé Diène na dem mu laaj leen kan mooy Paul ba may dem chef de moom demul chef de l'État ma bëree ba Malick jël ma yóbbu ma chef de l'État am moo tax dew ma. barki arxuraan. maa ngi lay jaajëfal baax wooteel wool say mbokk. waaw di waa yëmbal rek ñun yëmbal lañ dëkk ragaluñ gis nga bu fekkoon fii la ñuy siffler combat bi gis waa yëmbal yëpp dañoo ñëw ñun foo ñu woo si bëre dañuy dem ñun dañu nekk si kii yi nekk ay xale di di bëre mbapat ba yegg fu ñu yegg nii xam nga li muy wax ay liis njaago yow yaa ko mën man liis man kese la bëree bëri bu métti ñi si def yëpp da leen a jàpp daan leen man maa ko bëreloo ba mu sonn waa di woo madame xot daf ma jàppale may ma xaalis bëri ndam laa ko war a faye laay zulu dafa ma jàppale may ma xaalis bëri ndam laa ko war a faye yaa ngi dégg maa ngi woo Baara Gueye mu ñëw di ñu jàppale moom mooy suñu meer mais na ñëw di ñu jàppale comprendre nga sama fan si këlëm bi ku si mel ni ñoom Thierno dañuy sonn si man di cotiser di ma jox xaalis yaa ngi dégg di sant ñoom Mao baj Fall ñoom Thierno ñoom ñëpp di sant waa Mbedd Fass arrêt maa leen woo di woo waa arrêt Baye Fall di woo waa tournalu yëmbal di woo waa jaxaay tamit maa leen woo waa Kër Massar fu may liggéeyee di woo sama patron Babacar mu ñëw jàpp si billet yi grand barki alxuraanu karim bu jour ba combat yëpp du combat nga sasaan suñu combat maa ngi moom am na solo ay ca wooteel man moom li may woote bariwul parce que xam naa man maay toog plateau su ma toogee ci man dinaa gërëm quoi hmm. moom moo tax mooy gërëm ngi dégg waaw maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp wax ji affaire yi du wax jëf la ko man damay xabar bés ba def ma jëf waaw comme nee na def maa may saas waaw nee ko merci comme def maa may saas su bés ba moom man man ay bëri lii man waxuma ko waaw déglu dama naa déglu ba nga wax ba pare déglu ma boog ma wax moo gën mbele mbele coow la barke yàlla am na solo ay ca yóbbu leen ma woote waa fii sel koy waa fii sel to ndam layaten de ɓiy nuun o ten na maafel o ten ino juuf ka ndamtino a paax waaw jegaami jom wax deg fa yala moom fota ndamtaam o daal en tout cas gen fop jarano lay o xeeke im gar fi'a nen i ɗeet ko lakas quoi te moƴu wax le lay wax ju jar muy bari quoi man ma wax ju bari barke yàlla hmm. waaw kii maa gën a doon man sama yaay séeréer la sama papa séeréer Tidiane Faye daguma la Tidiane Tidiane Faye Tidiane sama nijaay la pour mu xam yóbbu leen c'est que dafa am lu tuuti lu may wax rek maa jëwee mbasa mbasa mbasa masa masa gars yi maa ngi leen bëggee ñi fi teew ñëpp c'est que daa am lu nga xam ne dafa am importance gis nga mbër soo àndee ak moom nga gunge ko moom mooy fayeku xaalis bi est-ce que yaa ngi dégg lu ma lay wax da ngay fexe nu mu bëree mais pas question nga di ko dugal ci ay violence ak yooyu ak ay menaces parce que yàggul yow ba nga wàcc ci géew bi bëri yéen bëri il faut ngoon loolu yéen yéen ay bëri li ngeen di def ni da ngeen di jéem a def seen bopp kani war ngeen cee mën a tabax seen kër dawal ci 4-4 comme tout le monde mais nag am na yenn image yoo xam ne nii ne ko moytu leen ko bu ko nangu bu leen ci kenn dugal ay noobul ngeen nit ki bu ñëwee di la ruube bëgg la yàqal nee ko na taxawee ne xaar na da ngeen di liggéey lii mooy seen gagne-pain bu leen nangu kenn di leen ko yàqal petit mi leen jox xaalisam seen morom la am na ci yéen ñoo xam ne sax ñàkkul ñoo ko mag kon nag il faut ngeen jéem a wane la bon exemple parce que làmb la da ngeen di bëre mu jeex après nga dem utiwaat adversaire il fallait que am ku daan am ku ñu daan mais yenn yi du image bu rafet te du comportement bu gën ngeen baal maa bu baax a baax jërëjëf Babacar na solo waxoon naa ko sànq fépp fu ñuy wax signature contrat ñu bari ci gars yi dañ naan bu amul sécurité duñu dem te loolu ñun ñoo ci war a bàyyi xel bu baax a baax rawatina ñu ànd ak mbëri mbokk yi kon dañuy dugal Brise bu Ngor ana Brise bu Ngor mu ngi nii moom la ñuy dugal ayca sama gars yóbbu leen Brise bu Ngor. bu Ngor Gandiaye laale laalee ana Gandiaye Xandiaye Xaajaay nee na Xaajaay lay laale fii nag Gandiaye lañ fi bind ana Xaajaay yóbbu leen ko gis nga xaajaale waaw onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu sante yàlla julli seenante bi ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu suñu euh, tëggkat yi di nuyu journalistes yi toog fii di nuyu gars yi di leen ziar bu baax a baax a baax di nuyu caméraman yi quoi di leen ziar gars yëpp di jaajëfal gars yi ma àndal quoi muy Ali Maf président bi di woo xam nga rek taaru di leen bëggee bu baax a baax di leen masawu coono aussi barki Sëñ Touba parce que léegi ñu ngi jàpp bàyyiwuñu di oo autorité Ngor yëpp di oo fukki pencax ñaari yi oo Ngor Wakaam Yoof di oo waa Tëngéej di oo ñëpp maa ngi leen di ci combat bi ñu jàpp su baax a baax a baax incha allah. xam nga xaajaay. a ah, xaw ma ko xam naa ko xamu làmb nii rek di ñaan yàlla le 17 incha allah boobaa moom dina ma xam. mosoo seetaan combat. jéem ma koo seetaan sax man boobaa damay appliquer rek moom la ñëw taxaw bu baaxoo bë bu bëree daanu bu xeexee daanu moom la ñëw taxaw rek. xaajaay sa nee na boo bëree daanu boo xeexee daanu loo def daanu. ginnaaw ma sant yàlla jul seen bi sant sama ñaari waajur di nuyu waa Parcelles 1 ba 26 waa 9 fu ma yeewoo di nuyu maire yëpp di nuyu booy yëpp xam naa ñi pare pour combat bi waaye delluwaat di nuyu waa Casamance fa dalee fooñ yi maa ngi nuyu baax dem buluf maa ngi nuyu bu baax jogaado maa maa maa maa defal maa spécial ndax lu ma war a am mbër li mu doon defal mbër ñu ma koy defal buluf ñu moo ko defal mbërët ñu ma koy defal kon maa si des kon kon incha allah kii jox naa ko cër sama adversaire la mais na xame am na combat bu mu yekkale fenn ki nga xam xaajaar nga xam bu jour ba nga xam ne kii champion la doomu mbër la man su may su may su ay champion lañ. nee eh, dëkk yi ngay woote moo la fa gën a xam moo la fa ëpp mbokk. non man fa laay dëkk ba juddoo yaroo fa. waaw xam nga làmb ji mu jëlee affaire de papa sama mbër la kii sama mbër la loolu doxul. jege si leen rek daje leen. làmb ji liggéey jaruñu la amul papa mbër amul magu mbër amul dajaay mbër fii liggéey jaruñu la man aw ma benn maam buy bëri wala aw benn papa buy bëri mais dinaa la duma dinaa la daan. làmb ji xam nga ne ku nekk da ngay liggéey ñaan yàlla waaye am naa droit woo sama papa ndax man mbër laa te doomu mbër laa te bu jour ba incha allah rabbi leen waa yow naa naa la loo def daanu boo xeexee daanu boo bëree daanu te dinaa la teg lu métti yow barke Serigne Touba. sawaay sawaay loolu ay waxu mbër la rek. loolu kii war na yàlla kii xamuma. dafa bëgg wax du bëri. man Casamance laa wax ne nii deux heures laay commencé bëri deux heures maa maay compétir sama diggante yàlla kii xamuma ma de waaye bu subaa la may xam maay kan. wax ji jarul muy bëri ko yow bu ñu bëree ba pare yow yaa yaay ki may tóojal par la force mu lay neex mu lay naxa dag may tóojal yow. man bu ma la jëlee laa xam ne am naa combat du ma la déglu fenn de man dama ndax bëri bu ñu signé contrat da ngay dem liggéey ñaan ñaan yàlla yàlla may la ndam xeebu ma la de. non man ma de di nelaw man dama tëddoon di nelaw liggéeyu ma de. am na solo bu la neexee yaa am yaa xam bu la neexee tëdd waaye man encore moom doom laa am rek bu subaa lu ma liggéey laay woon ma combat boo dëggal sa bopp du yàgg ndax amul droit yàgg yow xam naa kii moom xamul rek mais man am amul borom yàlla baax yàlla lenn rek la mën a too ba Sëriñ Tuubaa muy jëf kese wax ju bëri nii ma ne ma xam naa ne signature bi ma ñëfanti dañuy wax par la force mais nee naa la jëf la ma yàlla na too bés boobaa yow dëgg la doo ma gis xam nga ne rek du yàgg waaye yow doo ma gis. man de ginne laa moom man moom ginne la alal ginne laa moom. waaw euh, ñëm asafe muy ku tiyam ku jóol muy am pawam muy añ ñoolam mooy euh, am pawam tout si ñaayam njëmbe wonku di adversaire Rombo biir bu góor euh, pour inviter rammenam mi match victoire ak la di woo parcelle parcelle combat bi gëñoo naa bëre mais daa am taxu ma gëñoo bëre ñëw naa jël sama place si lamb kon maa ngi woo ñëw ma defal kii bagage lu cur lu yàgg sax incha allah rek ma duma ko daan ko dem ñibbi bu soobee yàlla wooteel waaw di jégalu ah bu fekkee nañ fi wax dara lu dépassé ñu ngi jégalu ñëpp mais di woo ñëpp nag di woo ñëpp di jégalu tamit xam nga rek si biir bi ñuy def fii si koñ bi parce que ah xam nga rek daa am nu mu demee quoi mais bu làmb weesoo rek après ñun xam nga rek ay doomu aadama lañ quoi si société bi la ñuy dox ti ay exemple lañ ay porteur de voix lañ quoi loolu ñu siy bàyyi xel bu baax a baax a baax di gërëm waa Ngor yëpp di woo waa Ngor di woo waa Wakaam di woo waa Yoff di woo fukki pencax ñaar yëpp di woo tund lépp yëpp maa ngi leen di woo waa cap ñëpp maa ngi leen woo ñu jàpp si combat bi seen doomu am combat le grand retour ak Isbak ñëw appliqué lu mu def daanu nee naa kii bu bëree daanu bu xeexee daanu bu soobee. ayca jërëjëf dugalal ma gars yi ñu dem ayca tàggatoo leen ànd leen noonu yóbbul man géwél bi day nelaw rek. ndeysaan ana petit petit kaay jege si ndax wolof daf ne loo xam-xam ma demba ma demba gën laa xam boppam grand combat bi petit da koo jël tuddee ko dafa ndànk rek mu tuddee ko Moussa Niane digganteem ak Moussa Niane dina ko wax waaye dinañ dugal Moussa ñaan mu wax bis bi ko Petit Dara jaal ban yëg-yëg la ci am ndax yaakaar naa ni ku jël boo yëmbal boole koog mbaytin numéro 2 mu nekk combat boo xamante ne axlu làmb gépp dañu koy xaar mu tuddee ko Moussa ñaan te am ñeneen ñu mu ko mënoon tuddee vraiment dinañ la jaajëfal bu baax Petit bis bi tey lan nga yëg sa diggante ak Moussa Niane lal waaw sant ak gërëm sant presse bi yëpp quoi la sant yow yaa Babacar xamal gis naa seen taxawaay ak Medina TV bi yëpp di sant samay mbokk samay xarit samay am di jàmm di sant maintenant bi yëpp di wax gars yi lii ferefere la foo la quoi lamb kenn mën saaga nit kenn mën da wax nit dara ba dugg si biir géew gi mbëri moo dugg si biir géew te que le te ñun ñëwuñu pour lamb pour violence dina ñëw pour lamb pour foog képp koo xam ngay violence nga dem feneen violence parce mbëri mooy féegu mbëri bu amee kër yaa amee bu kër papaam yow soo ko si volee demal sunu rafet dem supporté ko ci nice quoi fair play loolu la ñuy xaar ci booy loolu la xaar ci supporter yëpp comprends nga di wax gaar fair di sant samay mbokk waa Medina bi waa Ngoyal si la gëm a dëkk waa Bambey sant ñoom Modou Pouy ñoom Galzo Kadel Kadel Fallou Fall Touba ñoom Abdoulaye France di sant ñëpp di sant Moussa Niatta taxawaayam ci bés bi parce que déplacement yombul sant naa gërëm naa ko parce que tey li def mooy yëfi yëfi yëfi moom day jàppale ñoo xam ne dañuy liggéey te lamb mu ngi sunu karam ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom mu sutural moom nekk ay drapeau yu bëree bëree bëri parce tey xam ñëpp xam nañ fu ñu jógee ak fu ñu jëm parce que le 17 la te bu ñu jógee tabaski doo war a am fête te le mooy fête bi incha allah. lu tax ñëwul Mbaye Tine. non mu ngi si yoon mu ngi ñëw mais ñun nekkuñu fi xaar benn mbër parce ñun dépassé nañ ay niveau ci ay lamb ak ay yi comprends nga ñun teg nañ fi mbër bu ne mbër man événement nu mu mën ñëwee noonu laa ko jàppe événement mënu maa jaaxal mënu maa dépassé du ko jàppe sax événement li ma ci war def maa ko si def maa ngi samay mbokk samay xarit mooy stade fees incha allah na ne stade na fees jërëjëf Petit ñu koy jaajëfal bu baax Petit production mu nekk ndaanaan doon xale sant sant ñëpp ñoom usu bébé gars xam nga ñi nga xam ñoo ci jàpp ñoom usu bébé tëkkat yi xam nga maay sant ñëpp Medina gépp sant naa leen sant ñoom Babacar sant naa ñi nga xam waa nga Aliou sama waa dëkk parce que Ouzin Keita tamit maa ngi koy sant sama sant PDG Omar Sow Abdoulaye Sare France sant ki nga xam mooy Galzo 94 Fallou Fall Touba maa ngi koy sant di gërëm Modou Pouy ñoom waa PDG seen Omar Gamé sant naa ñëpp gërëm ñëpp su ma sant rek baax waa nga dugal ko quoi ñu eggale. Babacar. kaay nii. Babacar. waaw Gine. Petit dafa tëgg bis. waaw. grand bi nekk ci diggante. Mbaytin ak xale bii di booy yëmbal. nan nga gisee combat boobu. waa non petit moom làmb la tëgg xam nga euh, làmb moom boo ko dundee rek pour man li ngay boole di ko war a mën a xam quoi te petit comme lu may wax rek ak lu mën a xew dafa dund làmb. parce que bon nekkul ne ku nga xam ne la gan la ci man wala moom gan la ci gan laa ci moom wala petit gan la ci làmb noo petit bi muy tëgg ay làmb terrain banque ba ñooy ay ñoom aada faas ñi di fa bëre ak ñooñu xam nga loolu xaw na def tuuti benn temps. kon yàlla yaakaar naa ne mbir boo ci yàggee sonn rek bu yàggee boo gëmee sa bopp yàlla mën na si woon bunt pour man loolu moom la nekk foo foo maanaam foofu la toll tey moo tax nag dafa naa ne ren bi mu ubbee saison dafa indi caatu Rebeuss boole ko ak si tabu ngor ba Mar Diop fees dell dell dell macha allah mu jóge fa yàlla dogal loolu jeex mu ànd waa euh, LP Events tëgg Ada fas ak Coly Faye numéro 2 gis nga kere arène nationale ni mu mel tey bu indiwaatee mbaytin ak ki nga xam ne nii moom mooy booy euh, booy yëmbal muy combat boo xam ne ñaari mbër yi koy bëre ku ci nekk wax naa ko léegi booy yëmbal ku ci ne da nga jóge ci defet ndax mbaytin ku ne xam ne digganteem ak dab daan fi ñu mujjee booy yëmbal mi digganteem ak Mor Kankang la woon tey defe naa ne ñoom ñaar ku ci ne da nga ne ci sirsiwu làmb victoire rek moo lay arrangé kon petit yaakaar naa ne xam na bu baax a baax a baax li nga xam ne nii moom la boole sans compter xale yi nga xam ne ñoom la ci boole xale yi nga xam ne ñoo ci parce que gis naa ci ay xale yoo xam ne nii xam nga te su combat spécial bi nekk na combat yoo xam ne daal am naa yàqin ne yàlla nañ ko fekkee tal ko la 17 mais dina neex di ko ci ñaanal yàlla daal mu am ci réussite totale parce que tamit bés moom li ci am solo rek boo ci boo ko jubatee maanaam gañ xaas bi pour man du affaire bi mais li am solo mooy nga woote ñi ñëw après nga tëgg ko mu jeex ku nekk ñibbi si jàmm loolu mooy réussite bés après la reste nag yi des ay bénéfice la te barki dem maa ngi déggaat ne ka na beneen combat espoir muy ki nga xam ne ni mooy bébé bis mi ah, bu Cambérène ak xale bi ñuy wax Siteu bu Ngor kon ça veut dire que petit itam vraiment mu ngi jéem daal mbir mi nag li ci am solo rek mooy ngay jéem di def dara parce que yàlla moom comme li may wax rek ñëpp la fi nekkal yàlla na ko yàlla taxaw taxaw bépp doomu aadama promoteur yi tamit ñu ngi leen di ñaanal saa su nekk rek ku ci dugal fenn sa xaalis yàlla na nga ko réussir parce que yombul nga jël sa xaalis jox ko mbër di xaar yaa ngi dégg di xaar benn bés te lépp mën na am bés bay jot mais nag dañuy ñaan yàlla yàlla bu ndokk am yàlla bu dara am yàlla bu gàllankoor am ba bés ba yow tamit di la jaajëfal bu baax a baax jiili mais di waxaat rek ak suñu mbokk mbër yi parce que suñu ay frère lañu suñu ay rakk lañu suñu ay frère lañu nañu xam ne que rek lamb sport la amul violence non non làmb dër bi day am ci làmb xëccoo maanaam mu metti tar mais nag doo ci dégg kàddu bu ñaaw doo ci gis ku yëkkati sax bant di ko jam moromam parce que lu tax mooy ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal parce que ñaar ñii bu ñu bëriwul kenn du am xaalis mbayti nag boo yëmal bu ñu bëriwul kenn du encaissé comme nag nit ki soo bëree moom ci ngay encaissé mu encaissé kon kooku yéene ko jàmm waaye nag baar bi tëjee barrière bi lu ngeen mën defante leen foofu moom jàmm do waaw foofa jàmm waru parce que da ngeen di xeex da kon foofu moom daa war a metti nag comme signature yi nii ak kaw tribune yi ngir yàlla ak yonent bi maa ngi koy ñaan képp ku nga xam ne yaa ngi seetaan wasaare nañu fexe lépp li nga xam ne luy ñaawal image làmb la ñu moytu ko parce que ay sénégalais lañ te sénégalais warta jëf-jëf ju ñaaw man loolu laa gëm quoi sénégalais warta jëf-jëf ju ñaaw rawatina nag ndawu Sénégal te Sénégal ëllëg ñun jeunes yi ak lu mën a xew rek ñoo koy mujj parce sa boo xoolee parrain bi ah nga xam ne jeune la comme moom jeune la comme ñun di professeur di jàngalekat mu jël ko tudde ko bés bi dire que kon tey ndaw ñi nañu gën a sellal xel yi rek gën am yéene bu rafet gën am gis-gis bu rafet fecc bi nag xumbal bi neexal bi mën ta ñàkk waaye nag bu ma exagéré ba yegg ci niveau boo xam ne da yëkk tey xool daal lool rek laa ci doon wax di ñaan jàmm ci Sénégal tëbaski bi yàlla nañ ci duggal bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin lu ci waay soxla rek mu nekk sa souci yàlla na la ko buur bi fajal barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di ñaan jàmm Sénégal parce que Sénégal sunu Sénégal tamit yàlla na fi jàmm sax lu koy yàq buñ ci taxaw nañu fexe rek luy tax mu baax mais lépp nag li koy indi mooy mbir yi tegu ci dëgg ak mu mustaqim rek ba loolu amee rek jàmm dina am quoi jaajëf jili jërëjëf Babacar wax ji am na solo rafet na macha allah mbokk yi dañuy dugal combat spécial bi combat spécial bi nag ñu ngi ñaan képp ku ànd ak mbëri ngeen may ñu bàyyi ñaari mbëri kese ñu wax ñu xam ne lépp lu ñuy wax contrat moo leen boole ñoom ñaar te Petit Production moo leen ko jox jox leen avance dañuy njëkk a woo ki nga xamante ni mooy Douglas numéro 2 ana Douglas dugal leen Douglas yóbbu leen ko. Siteu bu anti ana Siteu yóbbul ma Siteu écurie Colobane mbooloo la nekk waaye Douglas mii tekk wax la noo gisee Siteu waaw aawul billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani ginnaaw ma sant yàlla di julli tudd sallallahu wa sallam di sant sumay ñaari waajur di nuyu gaay fi teew yëpp maa ngi jaare ñëpp di nuyu mbër yëpp di nuyu kulu supporter yi teew fii maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di suma sama adversaire di nuyu suma sëriñ suma sope seen mbéy si Mansour di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla guddal fanam sàmm ko te sàmm kilifa diine yëpp ci barke Seydina Mohamed di suma gaaw yu ma àndal nag ku mel ni Iliman dafa ñaa ak Zo su si bëree nag di nuyu suma adversaire fii li ma koy wax xam naa ni bëriwul man li may wax bëriwul ndax mu néew ma wax mais kii bu dee bëre maa ko daaku bëre bu doole maa ko bu doole peloton bi nag mën nañ nekk fii gars candaxu mais bu arbitre sifflé le 17 ba ñu bàyyi ñu ñaar si diggi géew bi kii bu dee bëre maa ko daa bëre du bëre damay bëre ñoo jàpp ko daan ko door ko ñu dóor bu ndamu Géejawaay ñun waa Géejawaay ñun amuñu dara lu ñuy ragal ñun jaarañ babat bu nekk lii jaaxaluñu ayca ayca lan ngay wax adversaire waaw auzu bilaa na wala yàlla wax ne jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba kax ji nga la ma bàyyi glace Mbacke sindi ñu bàyyi suñu buntu Serigne Touba di ko sant bu wér di ko ñaan yàlla mu yàgg fi loolu Mbacke Baal di ñaanal suma xarit suma doom day wàññeeku dégg nga Ousmane Nouré ñoo fa woon yarax maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla yërëm bu xaaral ko àjjana bu baax waaw di santaat di wax wa dambiram ku la laa indi tuubi rubina xam la wasul la naa yàlla yàlla wax ne jërëjëf borom Touba waaw ñun moom ay xale lañ maanaam xamewuñu sax wax lii boo gisee ñoo koy def dañuy neexal ndax dañu ay xale lañ lii ñoo war a neexal mu neex mais pas ñoo fi toog fii mel ni maanaam dëxin bu sedd ñu waxuñu lii lii lu làmb dañuy ñëw ñu neexal damay neexal fii bu bis baa ma neexal barki alaaj Fallou Mbacke bi ma yaakaar la ala waral kii du ma moromam maa ko dàq bëri maa ko gën a ñeme lu métti fuuf waa Fass ak maa yónni yàkkam di ma kii du maag moom xamal mu koy bu baax a baax kii bu bis baa du ma reculer un mètre ci ginnaaw bi ne prime maa si kaw yow nga xaar loolu bu baax waaw loolu yomb na de loolu yomb na bu arbitre sifflé moom instant bi mën naa wax neex mais bu arbitre sifflé ñu tëj barrière yi mag moom kese la gars yi di wax ni yëpp fii la ñuy yem lu coow li di bëri bari le 17 bu arbitre sifflé dina xam ne maa ko ëpp doole dina xam ne maa ko dàq bu bëri. nee na moom du la reculer neexee bu ko neexee bu mu reculer du toll nii ay nii man bu bu ko bu ko neexee dama koy ñëw jël si bu ko naqaree dama koy ñëw jël dama koy jàpp dàmb. li ma lay wax ni bu fekkee li ma lay wax lu am parce que Seydina Mohamed bu la neexee nga natt ko heure kii bu ma ko jàppee benn jàpp laa. kii li muy wax sax gëmu ko. wóor na lu muy wax sa gëmu ko. nekkul si moom. nee na la jàppee làmb kii su xeexee day métti si moom bu bëree mu gën a métti moom. dama xam naa du ma reculer man. gars yi bañ na ko ba li ma wax dalal man xaw ma xaar mbër du ma xaar mbër du lii moo may xaarloo. bi nga sa ñaata combat. du ma ko wax bu ma ko noqee ba pare laa koy wax ban ñaata combat la bii mooy sama ñaata combat du ma ko wax ñu amañ benn sax ñaata sama combat. ndax booy ay tapé lañ day ñëw ba làmb ji ruux daw. boo ko waxee day seetaan sa combat day daw. na ko dem seetaan sama combat yi mu ngi si YouTube bi na ko seetaan mais du ma ko ñaata combat laa bëri ay tapé lañ man Fass laa dëkk waa Fass dañ maa yónnee yàkkamti ma Fass déggoo lu ma la wax dafa am lu ma ko doon dee ñun ñoo pare pour dugalaat ko biir Fass Fass dëkku làmb la ñun dañoo judd si làmb yaru si làmb tërbiyu làmb dañoo war a lekk si xaalisu làmb ñun dañoo tërbiyu làmb du ñu nag booy yi bi mooy sa ñaata combat yow. waaw nee li mu bëri mën na daw combat bi man pour te dire damay waxaat kenn dul li mu am maa ko ko may man sama premier combat laay bëri te combat spécial laay bëri man du ma coŋoom ay ragal daluñu ma man gaynde laa géejawaay laa dëkk su ma ragal amu fa marché bi laa dëkk parce que seeni naa ko bu ñuy géejawaay la fekk baax waa Fass dañuy xaar man Fass laa juddoo Fass laa yoroo sama kër maam asalem Fass la nekk bu ñu wax làmb da ngay dem Fass la nekk ñun làmb la ñuy la Fass dara waaw ki ëppale ma Fass dara barki Seydina Mohamed te bara mu si xam dara Fass kenn xamu la fa maa la fa ëppale fuuf maa juddoo Fass yoroo Fass man doomu Fass laa direetu Fass mooy doomu suma yaram est-ce que yaa man kii six combats ma moromam kii maa ko dàq bëre kii bëri sax moom a nu mu demee sax moo may moom kii du ma moom barki alaaji Fallou Mbacke du ma moom kii maa mun fuuf maa la boo taxee combat bi du ñu bëre deux secondes boo taxee dëgg sa bopp du ñu bëre deux secondes maa sant Assane Diouf Kapo maa sant bu baax a baax a baax maa ngi koy sant bu baax la national na ma baax a baax ci combat bi na ma salle jënd na sama taxaw na ma nu ma a taxaw maa ngi koy ñaanal di woo monsieur le maire maa ngi monsieur le maire Golobane Gueule Tapée Fass Colobane maa ngi mu jàppale ñu bu baax président Daouda Seck maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a naa nu may taxaw Thierno Ndiaye président maa ngi koy sant bu baax a baax ñoom ñëpp sama gars yi yëpp maa leen di sant bu baax ay président xam nga booy aw ma seen fay quoi xam nga barke Serigne ma maa ngi sant ñëpp Fass di ñaanal Ada Fass ci kaw Zarko yàlla may ko ndam lu di ñaanal plateau yàlla defal nee na six combats la bëri kenn xamu ko six combats la bëri kenn xamu ko man maa ñëw suturaal ko yàlla may ko ñu mu bëri combat spécial. waaw maa ngi woo waa Guédiawaye yëpp waa Asalem Fass xam waa Gueule Tapée maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn du nuyu du nuyu waa Kër Aram sama sponsor waa Mitelec du nuyu sama gaay waa Bagdad marché bu bees waa yëmbal benn baraak bàyyiwuma kenn Gueule Tapée xaar yàlla waaw. am na solo yóbbul ma ñaari champion ko loolu moo gën a rafet dangeen ngeen fee nekk seeni seen nawle mbër te dañoo ñëw seen gox bu ngeen demee goxu jàmbur dañ leen dalal kon dalal leen li ci des grand combat bi dañuy dugal parrain bi muy Moussa ñaan su ko defee moom mu ñëw ayca dugal leen parrain bi ana sama waa ji tey ma di la jóobe ndaanaan ndaa naan des koy doon mukk bugaan gay dani li ni nga we doomi duniya iti yow Moussa Ndiaye borom la di set na wóolu na yàllaay borom jaam ni buri buri dama la wóolu buri buri laa doon na Moussa yaay gay ne mburu di njaay yaay gay ne mburu di njaay yaay yaay buru àll bi waaw yaay buru àll bi yaay masa masa loolu mënu tee ñàkk photographe mbokk yi ba tey ñu ngi ci grand combat bi dox ci diggante boo yëmbal ak xale bii di Mbaye Tine numéro 2 drapeau Moussa Fall Moussa ñaan mu nekk nit koo xamante ni nitu petit la ndax yaakaar naa ni nit ku la tuddee bis xeebu la cofu la bëgg na la bëgg sa jikko bis bi la di dugal tuddee ban yëg-yëg nga ci am Moussa ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi nuyu ñi fi toog ñëpp comme assistance bi muy mbër ak ñi nga xam ñoom lañu àndal di ci commencé ci petit le promoteur bi nga xam ni moom moo misé ci ay moyens ak ci effort ba taxawal lu mel nii ak ñi nga xam ne ñoom ñooy couvrir événement bi muy la presse di nuyu ñëpp di am impression bu neex ci bis bi nga xam ni moom la ñu dëtmal muy la di 17 di ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu ci ak jàmm ndax sport rawatina làmb dafa nekk sunu cosaan dafa nekk sunu aada dafa nekk sunu culture te dafa nekk loo xam ne dañ ko war a mën a promouvoir kon nag bu ñu amee ay jeunes yoo xam yàlla def na ci ñoom ñu bëgg làmb ñun duñ def lu dul taxawu leen duñ def lu dul accompagner leen accompagner ki nga xam ni moom mooy promoteur bi nga xam ne tey moom moo waral bés bu màgg bii. nan nga fas yéene ànd ak Petit ak bisu làmb ja lan lañu mën a xaar ci parrain waaw parrain bi comme ñu làmb dafa bokk ci ñu sport favori dañu nekk ñoo xam dañoo bëgg làmb ni ñuy accompagner yi mooy dinañ ànd ak moom ci lépp loo xam ni loolu la laaj pour bës bi mën a réussir ñu ànd ci ak moom ndax làmb au-delà du divertissement dafa nekk vecteur boo xam ni dafay transmettre message dafa nekk sport boo xam ni dafay yar dafay éduquer mais également dafa nekk sport boo xam ni économiquement dafay développer réew kon lu mel nii boo gisee koo xam ni daf ciy taxaw di ci investir boo bëggee see réew war nga ci mën a jàpp loolu moo waral tey ñu accompagner ko ci bés bi di fas yéene wéyal liggéey bi ba bale di set incha allah ñaari xale yi ku ne xam na ni mbooloo da leen di topp lan lañ mën a xaar ci wàllu jàppale ci parrain bi bolog yi billets yi ndax mbër moom loo wax mu ne la jàppale ma ci bolog yi waaw bëre ak jàppale ñoom ñoo ànd ndax ku ne xam na làmb ni mu méttee ak surtout ci jamono jii nga xam ni moom la ñu toll ndax euh, boo xoolee ay at ci ginnaaw làmb gënoon na am effervescence nit ñi daan nañ ci gën a dugal seen doole sponsor yi daan nañ ci gën a yëngu mais jamono jii li ñuy gis mooy. sponsor yi dafa mel na dañoo xaw a reculer tuuti autorités yi aussi dafa mel ni dañoo xaw a reculer dañoo xaw a génne seen loxo ci làmb ji waaye ñun li nga xam ne moom la ñu yàlla jàppale ci man-man daa ñu ko séddoog mbër yi nga xam ni ñoom ñoo war a sekk bés bi muy boo yëmbal ak ñi nga xam ni moom mooy euh, ñu ngi koy waxatee mbaytin mbaytin 2 bu ko defee yàlla def que le meilleur parce que jàpp nañ kenn du ci perte waaye làmb ci boppam moom mooy gagné bis boobaa le 17 incha allah. jërëjëf am na solo soxna si tey ban yëg-yëg nga am ci bis bi nga xamante ni Petit da koo jël dara jaale ko ki nga xamante ni mooy sa lépp. sant yàlla rek. fas yéene koo si jàppale rek. le 17 ñu ñëpp mobilisé rek daal di ñëw rek. dooleel ko. incha allah. tagal yi dina fa bari. incha allah waaw. bu sóoru 3 mètres. du yomb. Oh, <laughs> waaw macha ndaysaan nee na musóor yi du fa yomb boo yëmbal naan champion nekk xale boo xamante ni vraiment bu jógee yëmbal gépp dañuy jóg ànd ak moom ndaysaan mu nekk nit koo xamante ni vraiment champion la ci làmb yaakaar naa ne fan yi ñaari combat mi mujj sax neexlewu ci sànq ba euh, Babacar mu ngi koy wax ci diggante nee na benn yaa yaa caat euh, ki xeeru ngor ah. auzu billahi mina seytaani rajim ginnaaw bi ñu santee yàlla di julli ci rendum teer bi di sant suñu ñaari waajur bu wér di sant suñu sëriñ Seydi Aboubacar si yàlla yàlla yokki leeram te taas ci barkeem di nuyu ñu fi teew ñëpp ak sama moroomu mbër yee nga xam ne ñoo jóge ba yëmbal mënoon nañoo dem waaye dañu toog di xaar seen doomu ndey maa leen ziar bu wér di leen ñaanal seen combat bi ñu jëm yàlla nañ ci am ndam te am naa yaakaar waaw man ci quatre victoire laa jóge Mor Kankang moo ma daan. Mor Kankang moo la daan. waaw sama dernier combat bi passé. yaa xeeru ngor nu mu demee. maa xeeru ngor. xam nga li may wax sax duur rek loolu bugguma sax di ci wax. ah dafa amul ci diggante bi. ma ne boo yëmbal ak xeeru ngor boo yëmbal moo am ndam ci kaw xeeru ngor. ndax maa ngi yor sama drapeau ba tey te man lañ jox ndam ci biir géew bi. mais recours ba lu mu la wax. recours bi déggoo li ma la wax nag dafa am lu ko lié. bu dee recours bi dafa génn xeeru ngor am ndam xeeru ngor moo am ndam. xam nga ay recours indiwu ma fi mbaytin moo ma fi indi danga ma laaj te dama laa boo yëmbal moo am ndam ci kaw xeeru ngor moom lañ jox ndam te moo yor drapeau am na solo sa digganteek ak mbaytin lan moo la dugal ci mbaytin ak adversaire bi ñëwul te yaa ngi jëm le 17 nan nga fas yéene préparé ak waa yëmbal yëpp rawatina Matar xam naa ni fi mu toll nii lekkatul naanatul. waaw li may wax rek. combat bi dama ko soxla. ndax wax naa ko léegi. dama jóge ci quatre victoire. ñëw sama dernière sortie ma juum. te nit nag boo juumee da war a ñëw wane ne man dama juumoon sama combat bi passé. te incha allahu rabbi sama adversaire xaw ma lan moo tax ñëwul waaye maa ngi koy ñaanal jàmm yàlla na doon jàmm parce que jàmmam mooy sama jàmm ndax bu amee jàmm ma am jàmm mooy tax di 17 juillet ñu mën a jëflante kon maa ngi koy ñaanal jàmm xaw ma lu ko teree ñëw nag. waaye waroon naa ñëw ñu neexal fii. waaw dafa boo fas yéene jëflante moom la 17. waaw wax ji du bëri parce que. wa ku ne xam na ni ndaanaan la. xam mbaam bi mujj dafa juum diggantam ak dab daan waaye ndaanaan la ci la. xam nga wax balaay neex. nga jàkkaarloo ki nga war a jëflanteel. boo ko dina toll. non yow man xam naa li nga bëgg rek <laughs> te loolu du ma ci dugg. li may wax rek avant tout damay remercier ñi nga xam ne tey ñoom laa àndal sama doomu ndey ku ci mel ne Matar Bamba si yaa salaamu laasmoo ak talaa mële saa yu ma geesoo rek seen leen sama wet wax dëgg yàlla dama leen di ñaanal jàmm ju bëree bëree bëri combat bi dañuy woote parce que combat waa yëmbal la su ma nee combat waa yëmbal la nag Ibama dafa war a fees te yaakaar naa trois mbër yoo xam ne dañuy jógee gox boobu ñoo fay bëre te bëgg nañ stade bi kenn bañ ñu fa ëppale dara kon nag dañuy woo autorité yi nga xam ne ñoo nekk yëmbal suñu nee autorité nag dañuy wax Modou Mbène Diop doomu Dame Diop Mansour parce que saa yu ma geesoo rek seen ko sama wet ku may soutenir la di ji woo suñu monsieur le maire Bara Gaye ngi koy woo ci combat bi nañu ñëw soutenir ñun ay doomu yëmbal lañ dañuy représenté yëmbal drapeau yëmbal la ñuy faydal xam nga maa ngi koy woo ci combat bi Moussa Guissé Séri May maa ngi koy woo ci combat bi ministre Hott yaakaar naa gis nañ ni muy soutenir tamit axlu képp koo xam ne rek dëkk nga yëmbal gis nañ nim lay soutenir maa ngi koy woo ci combat bi moom ak madame ot yëpp ñoo ngi koy woo ci combat bi bàyyi wuñ ko hélas combat bi sa combat la yow xam nga man xam naa xama di woo képp koo xam ne rek autorité nga te dëkk yëmbal ñoo ngi lay woo rawatina nag sama waa dëkk waa Kobangoy Samba Dia Fadial Fimela xam nga waa Gambi sama grand Mansour maa ngi koy ziar bu baax waa Gambi ak ñëpp ña fa nekk parce que waa Gambi dañoo war a jugee ba Gambi ñëw ci combat bi mm. incha allahu rabi maa ngi leen di woo ñëpp nag di nuyu ñëpp. ayca jërëjëf ñu joxante loxo gars yi am photo.